ووعيد الحقه الله بالكفار والمدار في ذلك على القصد وعدمه بوبو ميغي نيكون تي كي جانغ كي جانغ قالت اليهود يد الله مغلولة أو وقالت النصارى يد الله مغلوله wa qaalat il yahuudu yaddullahi maxlulatun mu ne kuy wax loolu ndax dañu koy àtteel ak kéeféer wala dañ koy jàpp ne moom dafa nettali wax ji rekk mu ne liñ jàpp mooy su dee fasu ko ci xolam maanaam du lum gëm danay jàpp na dafa nettali rek waaye ñi yàlla di tëkku ci ñi wax baat yooyu mooy yéefar yi nga xam ne ñoom ñoo ko fas kon daal li am solo wal madaaru fi dalika ala al qasdi wa adamihi euh, li am solo ci mbir mi mooy jublu gim ci jublu ak ñàkk ko ciy jublu maanaam moom ndax li muy wax ne yàlla dafa nay ndax moom loolu ngëm-ngëm la ci moom wala jubluwu ko ci loolu rek lañuy xool su dee jubluwu ko ci dañuy jàpp ne dafa nettali rek moom waxul wax ci su dee da ko jublu nag dañuy àtte boobu day dal ci kawam dañ koy yéefarloo ci lislaam تي نيغي ورا كومانسي وما نسب لابن لابن الجزري من تكفير من وقف على تلك الوقوف ولم يفصل ففي ذلك نظر ابن الجزري دا فا وخني واخ بي نيو واخني كيغا خامن دا فا نييو تاخاو تي تاخاو تي يد الله مغلوله dañ koy kéeférloo qaalatil yahuudu teg ne yaddullahi maxlulatun mu ne dañ koy yéefarloo mu ne déet lool nag nañ ci taxaw def ab taxaw seetlu nee na ibnu jazari li mu wax min takfiiri man waqafa ci ñu yéefarloo koo xam ne dafa taxaw ala tilkal wuqufi ci yooyu la taxawukaay ولم يفصل ليرول مانام تخاليول ففي ذلك نظر لولو امنا جيس جيس امنا سير سير نعم ان صح عنه ذلك حمل على ما اذا وقف عليها معتقدا معناها من دال لي وير سو فكي ورنا موي كاني kii taxaw ci aay kii taxaw ci baat yooyu ñu bañ mu taxawee fe mooy wuquuf yooyu mu jàng nañ ko defe naa ci ñaari émission ba ñett place yi mu doon wax ne war nga fa taxawee waroo fa taxawee yin buggul ko fa taxaw yi ñaaw ñu taxawee fa yooyu yëpp waxoon nañ ko mu ne wukkuuf yooyu daal li ñuy jàpp mooy ku fa taxaw te fekk moom nga fas wala yow nga xam ne maanaa bi lii lay tekki ba pare nga di fa taxaw nee na ñooñ la àtt bi di dal fa innahu yukaffaru sawaun waqafa am la mu ne ki nga xam ne ngëm-ngëm boobu la am dafa gëm ne yàlla am na doom wala mu gëm ne yàlla dafa nay mu ne kooku moom bu fa taxawee ak bu fa taxawul yëpp dañ koy àtte comme ab yéefar dañ koy àtte comme ab yéefar wal qaari'u wal mustami'u al mu'taqidaani dalika sawaun nee na kiy jàng ak ki koy déglu su dee ñoo bokk pas-pas boobu mooy dañu gëm ne lii nuy wax ci aaya bi mooy dëgg mooy yàlla dafa nay wala sunu borom am na doom nu ne yii ki ko fas kiy déglu ak kiy jàng ñoo ci yem ñëpp lañuy ñuy kéeférloo même bu dee ñu ngi jàng alxuraan ba pare gëm li yéeféer yi doon wax ci alxuraan naan yàlla dafa nay wala ñu gëm ne yàlla am na doom ak yu mel noonu ñooñu dañ leen di àtte comme ay yéeféer ci diine ji même bu dee day déglu rek kii mooy jàng mu koy déglu di bànneexu ci déglu gi kee tamit moom mooy jàng di dem bu dee lool ñuy jàng loolu lañ gëm dañ leen koy sanctionné su dee nag gëmuñu ko waaye dañoo gis ne alxuraan a ko nettali ñu nettaliwaat ko rek jàll loolu amul benn problème wala yu al muslimu illa ida jahada ma huwa maalumun min ad diini bi darurati mu ne ab jullit kenn du ko yéefarloo lu dul dafa dagge ci diine ji loo xam ne kenn waru ko dindi weddi julli weddi koor euh, weddi ab yonent yu mel noonu dajj xadis yooyu moom ku ko dindi ci diine ji mënees na laa kéeféerloo ñu ne kidiw ab yéefar la ndax weddi na yàlla wala weddi na ab yonent wala nangam waaye bu dee ci déggin yu mel nii rek la loolu kenn du ci yéeféerloo ab jullit lu dul li ñu wax léegi moom moo fas ne yàlla am na doom wala ya ca aju de mu ne nag li ci Ibnul Jazari wax ci barab yi mu naan la bul fa taxawee daf koo woy mu ne maxlulatun fala takun bi waaxifi fa innahu xaruma inda alwaaxifi mu ne baatu maxlulatun bul fa taxaw qaalatil ya qaalatil yaddullahi maxlulatun mu ne maxlulatun bul fa taxaw maxlulatun mooy mooy koo xam ne dañoo gëx ay loxoom dañ koo ko jéng yeew ko ci ginnaaw chaîne ko xam nga kooku mënut a joxe ñoom ñooy misaalal nit ku nay dañ koy misaalal ne diw dañoo yeew loxo yi ci ginnaaw fii bu dee ci ñun aada bi ñu am ci wolof bu diw nayee dañu naan diw loxo bi dafa dagg buñ ne loxo bi dafa dagg jubluwuñ ci loxo bee dagg de ku sa lagg ku sa loxo dagg doo mën a joxe ñoom nag maxluulatun la ñuy wax mooy ko xam dañoo boole ñaari loxo yi ci ginnaaw yeew am kooku mënut a joxe ñoom loolu lañ askane yàlla mu ne booy jàng alxuraan ba yegsi ci baat boobu bul fa taxaw foofu du taxawukaay maxluulatun fala takun bi waaxi fi mu ne baatu maxluulatun bul fa taxaw mukk yow fa innahu xaruma inda alwaaxi fi ndax foofu xaraam na ci kii jàng mu taxaw fa ci aji taxaw ji fa in takun tusqi fa anta alqabasu wala maa lam yakun qad minka alnafsu maa fa in takun tusqi fa anta alxabasu mu ne maa lam yakun fii ak nekkul nag qad di xat minka ci yow an nafasu noyyi lu dul danga ngaa téye di xëcc di jàng di jàng di jàng di jàng di jàng ba ci yàgg sa nooy gi takk nga war a noppalu pour nooyi pour continuer wat lolou mom fa nga taxaw fa ndax da nga am problème mu nokki koku mom ayul fa in takun tusqi fa antal al-khabasu mune su fekkee euh, yaa ngi xewlu lolou manam yow pause rek mo la fa bayyi ngay tewlu makna wu badi ta xamne yow djublu wo ci lolou lolou duñ la ko top ndax yow da ngay nitu manam yow da ngay sakku ak leer ci yalla wala ala inna nasara qaalu aydan xaraamun faarifan maa qaalu mu ne wala ala du caage inna nasara kaalu baatu inna nasara loolu yow bul ko wax xam nga inna nasara mooy ñun ay nasaraan lañ mu ne foofu bul fa taxaw ñun ay nasaraan lañ ba pare ne tekk taxaw mu ne déedéet inna nasara qaalu loolu foofu bul fa taxaw nee nañ ñun ay nasaraan aydan dafa la yàq ci place yi nga xam ne doo fi taxaw mu woy ko xaraamun faarifan maa qaalu mu ne lii lu xaraam la na nga xam bu baax lii lu ñuy wax wala ala al masiixi ibnullahi mu ne wala ala al masiix du caage ñu ne masiix ibnullahi doomu yàlla la soo demee da nga fekk xaaliti nasara al masiixu ibnullah mu ne fi ñuy waxee masiix ibnullah mooy masiix doomu yàlla la masiix mooy yonti yàlla isa mu ne foofu bul fa taxaw fala taqif wastain billahi waxuma sax bul fa taxaw waye na nga muslu sax ci shaytan ci baat yoy rek fa innahu kufrun liman qad alima mune ne ak kefer la ci ko xamne ne xam na ko ba pare taxaw fa ko xamne li lay tek yàlla amna dom ba pare nga xam loolu ba pare ñëw taxaw fofu def pause bi pour ñu bàyyi ci xel yow kefer nga qad qaalahu ljazriyu nassan hasbama mune li lii la imaam jazri wax nang ko xam bu baax mu nek lu mu yaxal doy na sëkk nag wax dëgg yàlla wa sa alal al axkaami fi ma qad baqiya fa innahu lxaqi fai wa aqiqan xiimaal xiyaasal li nga xam ne moo ci nekk ci ay atte ci li des nga xiyaas ko ci lii ñu jàll am na yeneen yu des nag yu bëri bari yoo xam ne même atte bii la am mun a taf ko ci bii rek li wolof bi wax waxi noppi léeg-léeg misaalal la dara ne la et cetera et cetera et cetera maanaam boo gisaatee yu mel nii même atte bi lay doon dégg de kon nag na nga sàmmanteeg loolu te nga dëggal ko wala taqul yajus ala alxikaaya li annahu qawlun bila diraaya bul wax ne rek ah loolu daal dagan na parce que waa ji bon du moo ko wax da koy nettali rek nasaraan yi ñoo ko waxoon wala taqul bul wax mukk yajus dagan na ñu taxaw fa ndax ala alxikaayati loolu daal nettali la rek li annahu qawlun bila diraaya yooyu ay wax la yoo xam ne amul tegtal mu ne déedéet yow bul waxee noonu xamal ne مخالف للأئمة الأعلام وما جزاء من خالفهم إلا أن يمحى اسمه من ديوان العقلاء فضلا على الفضل فضلا على الفضلاء من مخالف لأئمة الأعلام كيف كو خمنا دنگا ووتيك سنو نجيد ينو خم سنو إمامي أي نيوم إمام مالك أي نيوم إمام شافعي أي نيوم إمام جزري ني وخني لغي ay immatul islam yu mag yooyu nga xam ne ñoom daanaka ñoo ñoom la yàlla programmé ñoo garde njàngale yonent bi salaa salaam ba ñu mën cee jot wama jazaau man xaalafahum déet fayu kenn ku wuuteeg ñoom amul lenn luy fayam illaa an yumxa lu dul dañuy effacé ismuhu turam min diiwaanin uqalaa yi ca diiwaanu ñu am xel ñi nee na nee na imaam yi ñu xam ci diine ñu jàngale sunna yonent bi ni mu leere jàngale alxuraan ji ni mu leeree mu ne kii képp ko wuuteek ñoom sa fay ci yàlla xam nga mooy lanam mooy yow dañ lay effacer ci diwaanu ñu am xel maanaam yow dootuñ la considérer dañ lay jàppee dof parce que yow génne nañ la ci ñu am xel ñàkk xel dëkk mooy tax nga xool li imaam yi am consensus ba wax ko nga ñëw teggi ko teg ko fale sa parce que yow amoo xel waaye boroomam xel du wuuteek ñoom mukk ci àddina fadlan na ànd fudalaa yi loolu na ngëneel la yàlla defal ñi nga xam ne ñooy وي تدني بشم جنتل وخم راجع عن ذلك الكتاب فيه أضول مما نقلنا من دمان غير تيربا سو دمي دانك تفي كل اوب لي مالاي واخني دنگ دي يجي داس نك ات النحو لا ما نصب لابن الجزري ما مبتدا وجملة نصب صلة ولول مام بروبليم غرامير بلاي واخ وصحيح عند قول من لاحظ الاعتقاد والمعتقد فلا خلاف في كفره دنگ دي xultu Seydi Xaaj Malik nee na bu ne xultu rek moom mooy wax xultu ma wax man Cheikhul Xaaj Malik wa saxiixu li wér inda qawli man ci waxi ka nga xam ne laa xasal laa xasa dafa géndee ko al icti pas-pas wal muctaqidu ne aji ak aji fas ji fala xilaafa fi kufrihi amul benn wuute ci nu yéefërloo ko waqafa am wasala moo xam taxaw na fa wala taxawu fa mooy taxaw na wala jokkale na wa gayrul muctaqidi ku dum aji fas lii nag fal axsanu li gën a rafet daal an yuxmala ala alxikaayati fala isma alayhi moom ñu jàpp rek na dafa nettali wax ji waaye moom amu ci benn bàkkaar boo xam ne dina ko ci war kon Cheikh El Hadj Malick ginnaaw bi ñu defee synthèse bi ba wax li borom xam-xam yëpp wax def na daal léegi bu ma doon tënk wax ji dama naan la ki fas ne lii la li wér wóor mooy kooku moom bu taxawee ci maxlu la ak bu taxawul ci maxlu la yëpp ab yëfër la ki nga xam ne fasu ko nag moom loolu gëmu ko maanaam du du pas-pasam dafa jàng ba yegg si fa ngànt tax mu taxaw fa wala xamul sax maanaam mu ne kooku li rafet a baax mooy ñu jàpp ne dafa nettali li yéefar yi waxoon comme du pas-pasam kenn du ko ci àtte wama yuqaalu inna man waqafa alayha batala salaatuhu mu ne deesul wax nag ne képp ku taxaw foofu rek sa julli yàqu na mu ne déet fal yunzar ala ayi wajhinil butulaanu foog ñu xool ci ban anam la julleem di yàqoo mu ne bu fekkee ñi wax ne dañ ne ku ko jàng ba yegg si yadullahi maxlu la nga taxaw sa julli day yàqu ndax dañ naan yéefar nga wala nga ne masi ibnullah nga taxaw dañ naan la yéefar nga kon sa julli gi yàqu na mu ne déet لول نك نانكو سيتات فوفو موم وار نان فا تاخاو ان لم يعتقد المعنى سو فكه فصل معنى بي مع ان الشارع لم يعين لنا محلا لي وير موي شريعه موم ليرالو ني بن بلاص بو خامني يجب الوقف عليه او يحرم لي وير موي تي شريعه نك واخ دغ يالا امول فونو يالا واخي ولا فونو يلانتي بي واخي نانيو في بولين في تخاو تي القران naan ñu aaye bi maxlu la boo fi taxawee nangam naan ñu aaye bi masi ibnu laa boo fa taxawee nangam mu ne loolu moom yàlla waxu ko yonent bi waxu ko mais borom xam-xam yi ñoo ko wax léegi nag bala ngeen cee yàq jullit jaamur dañ koy seetaan c'est-à-dire foog ñu nangu kaamil bi boo ko téye di jàng yàlla ci boppam sunu boroom waxul ne yadullahi maxlula bul fa taxaw yonent sallallahu sallam waxul ne almasih ibnullahi bul fa taxaw mais boroom xam-xam yi ñoo xool teggiin ak xorma ci yàlla ak fatt bunt bu saay-saay mën a jaar di prox ndollu ci diine ji ñoom ñu teg ay réglement ne ne baat yi bu fa kenn taxaw benn du xorma ñaareel bi ci des dëppoowul ak pas-pasu jullit dégg nga de qaala al-Jazari fi muqad fi muqaddimatihi radiyallahu anhu mi ngi leeral ca muqaddimam ba wa laysa fi lqurani min waqfin wajaba wajaban wajab mu ne alquran amul taxawukaay boo xam ne dañ naan lu obligation fii ngay taxaw mu ne loolu amul wala xaraamin gayri maa lahu sabab wala foo xam ne dañ naan la fii xaraam na nga taxaw fi xanaa yii ñu doon wax naan la bu dee pas-pas boobu nga am bu dee da nga am ngëm-ngëmu yàlla am na doom moom foofu boo fa taxawee taxawul yëpp dañ yàgg dañuy door àtte sa kaw mune way nak yi ñuy def règlement yi borom xam-xam yi ñoko samp ngeen téggénal ak hormal diine ji pour ñu bàyyi ci xel su ko défé yoy tamit yenen faida mi ngi ci faidatun ukhra fi itihaafi fudala'il bashar fi alqira'ati arbaati arbaa achara li sayidina banaa'i fi fadli aadaabi alqur'ani walqaari ana yeneen i njëriñ yoo xam ne boo demee ci wàllu xiraat yi la ko def def na ci fukki poñ ñeent yoo xam ne da ciy jàngale teggiini jàng alquran wala teggiini alquran ak ki koy jàng ba mi ngi ciy jéem a nettali sax su fekkee da ngay julli ba ci yàgg nga dégg ñu tudd turu yonent bi nooy def wa in marrat bihi ayatun fiha ismu muhammad mu ne booy julli ba yàgg nga jàng aaya boo xam ne turu yonent bi mi ngi ci muhammad carrément ñu tudd ko nee na sallallahu alayhi wa sallam salla alayhi wa sallama mu mu julli ci moom te salman sawaunul qaari'u wa saami'u moo xam imam bi jàng wala ki koy déglu mu julli ci yonent bi loolu dara nekku ci walaw kaana al qaari'u musalliyan walaw kaana al qaari'u musalliyan donte kiy jàng mi ngi doon julli mu julli wala ci yonent bi nee na loolu dara nekku ci lakin bi damiri waaye nag ci damir rek nga koy defee damir gi mooy lan mooy nga wax sallallahu alayhi wa sallam bul wax allahuma salli ala sayyidina muhammad laa allahuma salli ala muhammadin li ixtilaafi lil ixtilaafi ngir wuute gi am fi butlaani solaati ci yàqu julli gi bi ruknin qawliyin wa yata akkadu bu ñëwaatee foofu la ñuy yeggalee li ñu amoon ci ay minutes jeex na jox leen dig dajee semaine bii di ñëw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu بيت الولايات فيه فخزنا Shall we